<laughs> retour sur le plateau de Yeewu Leen mbokk yi ñu ngi leen di euh, gërëm ba léegi rek ñu àndandoo ak yen jëm 10 heures ci télévision Futur Média plateau bi am na renfort nag euh, renfort baa ngoog tey dañuy dem Mali. voilà pourquoi ñuy dem Mali dañuy préparer grand sumu euh, am ay gan yu mag yoo xamante ni ñoo ngi ci plateau bi euh, muy Djiby Dramé ak euh, sunu xarit bi mu àndal xam naa ni dina ko présenté ci kanam ak monsieur Sarr parce que ñu ngi jëm ci waajtaayu grand sumu mais dafa am suñu benn xarit boo xamante ni comme ni ñu leen ko diggee woon mu ngi tudd Mariama alors Mariama tey moom moo ñuy woyal dinañ waxtaan itam ci ay activité am ak album bi nga xamante ni moom la mujjee génnee mais en attendant on va dañuy dem directement. Cannes Pape Pape man présenté ah boobu yow jaratoo présenté jaratul jaratul ñu lay présenté jaratul ñu lay présenté euh, bu ko kenn filmé bu ko kenn filmé <laughs> <laughs> yow tey da ko la présenté parce que démb gis naa la Walfadjri waaw man damay jéem a damay waaj a transhumé. ñu ne dama bëgg a dem te ci télé yëpp Bouba Ndour. waaw waaw. da ngay waaj a dem wàllu faj. Bouba Ndour fépp Bouba première personne bi fan la def animé fii lundi fi mardi fi mercredi. wax fii. wax fii wax fële. alors euh, ñu euh, balaa ñuy dem euh, ci festival de Cannes yenn ci ay xibaar yoo xam ne am nañ ko ak tendance bi dañuy waxtaan ak monsieur Sarr ñu ngi lay nuyu gërëm la ci sa teewaay tey ci yow leen bi ñu ngi préparé grand sumu bi alors la boo xamante ni yamatul Mali rek ndax Sénégal dañu koy xaar tout le temps. waaw waaleykum salaam maa ngi leen di fay. ay ca grand sumu. Uh-huh. Oh, grand sumu moom xam nga mbir la moo. xam ne wala nga bëgg ma wax ci. waaw bu la neexee <laughs> waaw gannaaw su mu nekk na mbir moo xam ne léegi Afrique yëpp ko moom. Mhm. nekk na loo xam ne suñu mbaax la jëm ci tradition mandé. Mhm. te ku ne mandé léegi da ngay xam ne laal na lu jëm Sénégal laal Mali laal Gambie. Mhm. dem ba Niger. espace boobu yëpp mooy li ñuy wooye espace mandé. parce que musique mandé finalement du Mali rek ko moom quoi. non Mali rek moomu ko ah, parce que espace mandé boo koy xool dans l'histoire boo koy sondé. Ah, ah. day dem ba Éthiopie. te Éthiopie fa pratiquement berceau civilisation et puis tradition mandé nekk na loo xam ne lii Euh, booy xool ci biir euh, li ñuy wooyee constitution tey euh, dans le monde entier mhm. la première constitution du monde a été ñu ngi ko élaborée dans le Mandé en mille deux mille deux cent soixante mhm. pratiquement donc au douzième siècle au treizième siècle mhm. donc les Africains ont construit la première constitution mondiale et ça c'est important et dans le Grand Sous maintenant on va voir dans le partenariat qu'on va avoir avec TFM avec Djibi avec Sékouba comment nous allons arriver maintenant à exhumer encore ce passé là boo xam ne c'est extrêmement riche te am na doole mhm. ba nga xam ne àddina yëpp dina ko dinañ ko siiwal ñu gën ko xam voilà daañ ko dugal bu soobee yàlla ci grand naka naka naka ngeen def ba événement bi nag nekk nekk nekkatul juste une émission télé ah c'est devenu un rendez-vous euh, bu bu bu bu Afrique yëpp nga xam ne ñëpp koy xaar mhm. euh, lan mooy secret wu grand sumu mooy moom xam dafa nekk loo xam ne lii maanaam boo koy xool ci wolof da nga naan mbiru genre xawaare la woon. te xam nga xawaare dafa nekkoon rassemblement ñoo xam ne ay noble lañu. autour du roi. autour de la royauté. Hmm. nit dañuy toog di waxtaan. di fundaanaan quoi te xam nga hmm. dans la tradition africaine. <laughs> Euh, madame le griot. c'était celui qu'on appelle le maître de la parole. kàddoom dafa amoon solo kàddoom day day soññ kàddoom day engagé même le roi même dans des guerres et de faire ne pas faire la guerre donc amoon na un poids extraordinaire boo xam ne dans l'organisation de la société traditionnelle d'accord bon léegi nag euh, siiw na uh-huh. boo xam nga télévision moo mel noonu du mu leen ko jàng uh-huh. bon boo génnee benn mbir presque uh-huh. comme Africa bi na divisé partout en Afrique nañ divisé partout dans le monde en Europe au Maghreb au moyen Et quand nous na maintenant, mhm. évidemment léegi nag public bi day commencer adhérer. et puis mhm. affaire bi day siiw. Mhm. nit ñi approprier ko. bon donc wala euh, loolu mooy xëy na secret bi. du secret bi mais en tout cas nekk na africain jënd nañu moom daal. voilà programme mu Africable télé télévision la wax ñu ci partenariat euh, télévision Futur Média ak euh, télévision Africable. waa loolu moom lu ñuy rafetlu la parce que damay naan c'est un partenariat intelligent. parce que tout de suite, quand on a eu M. Ndour, euh, Ndiaga, il a eu la, euh, ce qu'on appelle l'instinct prospectif. Madame Gisnelo Khamdeli, génne nañ ko mu mel ni gis na ne bu buñ ko tàllalee dina sori. mën na am njëriñ te ci biir bu ñu yàlla mayee ba ñu fekkewaat. Mhm. Euh, décembre ñu ngi ciy waxtaanaat est-ce que du ñu sonnaat grand suma bu boobaa ñooy ànd def ko. d'accord Africa du ko def mais yaakaar ñooy ànd def ko. incha allah bu boobaa xam naa ne dana dana weesu daal. liñ ci yaakaar yi alors parmi stars yi jóge Mali euh, dañuy ñëw d'abord ci Sénégal Sénégal da ngeen def euh, choix ci Djiby Dramé defe naa moom porteur de voix bi mu doon kenn dootu ko werante mais d'abord mm. Djiby dama bëgg nga présenter ñu. Sekouba Tandia. Sekouba Kandia Kouaté. le hmm. monstre de Kandia Kouaté la. d' accord. grand euh, artiste international. Hmm. Sekouba Kandia. Sekouba Kandia Kouaté kenn du ko wax boppam. Hmm. Sekouba Kandia Kouaté daf na histoire. du Mandé. waxuma la sax euh, xale bi nelaw léegi sax soo ko yeewoo. soo nekk kan mooy Sekouba Kandia Kouaté dina wax. xam na ko dëgg la. mooy doomu Sékou doomam moo nekk nii. Mhm, mhm, mhm. kii soo demee Guinée. kenn du ko présenté. soo Afrique kenn du ko présenté monde entier kenn du ko présenté. mooy Sékou Ba Kanja Kouyaté. <laughs> kii ma doomu Sori Kanja Kouyaté. parlez-nous de, votre musique de votre art qu'est-ce que vous fait de au Sénégal et de participer à ce rendez-vous. Euh, le grand Soumou. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs euh, et je vous dirais que je suis très heureux d'être euh, ici aujourd'hui pour participer au Grand Sommet parce que c'est l'intégration africaine. Il faut reconnaître que

l'histoire du Manding. Donc, à travers de grands mots, nous essayons de véhiculer les messages aux, aux, futures générations et à la nouvelle génération. Parlez-nous un peu de votre carrière pour euh, ceux, qui, ne vous connaissent pas. je suis Sekouba Kandja Kouyaté, le fils de Sori Kandja. Mm et je suis le quatrième. J'ai commencé la musique. Euh

comme on le dit en, en bon terme africain, quelle qu'en soit euh, la lame du couteau, mm -hmm. il ne peut pas limer son bout. Mm -hmm. Donc je dirais tout simplement. Ah, okay. <laughs> voilà. voilà. Donc je me limite de là. Hein, uh-huh. et la musique va montrer après que, comme Djibi l'a dit, mm-hmm. hein, voilà. Alors lu tax lu tax ngeen boole Guinée Sénégal Mali ci benn daje. bon loolu mooy li ma wax laajoon sànq rek mooy espace Mandé moo yaatu. Mhm, mhm. te ñu ñëpp ñoo ko bokk. Mhm, tradition Mandé ba xool euh, Sénégal mi ngi ci biir Mandé. Guinée mi ngi ci biir Mandé. Euh, Mali mi ngi ci biir Mandé. Mhm. boo demee Burkina Faso ñu ngi ci biir Mandé. Mhm. te fépp foo ci dem ba Niger. Mhm. dañuy làkk Mandé. d'accord ñoo bokk loolu yëpp. donc colonisation bi rek moo ñu séparé. mais espace beeg empire bi. vraiment yëpp benn donc musique Mandé boobu daanaka moom moo ñuy lëkkale quoi léegi ci seen kanam ci kanamu Sékou Ba ak ci kanamu euh, Djiby Dramé ñoom ñaar ñëpp amatuñu lu ñu prouvé mais dafa xale boo xamante ni dama bëgg mu woy euh, seen kanam c'est une très devant vous comme ça ngeen euh, euh, découvrir ko nga découvrir ko et euh, dinañu waxtaan ci albumam ak yu baax yi nga xamante ni moo ngi koy préparer fu su wooyee sa xel dem ci diva yu mag yi alors Mariama dañu lay bàyyi nga nuyoo ñokk woy wu neex après ñu doogoo waxtaan parce que tey yeewu leen dina mel ni grand sumu <laughs> macha allah. non ovation la ovation la mérité nañu nañu jóg nañu jóg taxaw Allah baraka merci beaucoup. avant que tu ne parles avant que tu Elle est magnifique. Elle est petite comme ça. Moi, je pensais pas bien là. Elle a quand elle venait d'arriver là, je pensais qu'elle faisait l'intéressant avec, sa tête là. Elle, eh elle m'a fait voyager quand même. Ah ah <laughs> <laughs> Monsieur Sarr, comment tu la trouves? noo ko gisee Le mot qui vient à l'esprit, c'est formidable. Ah oui, euh, C'est-à-dire ça témoigne encore du du riche potentiel culturel et artistique africain. Et on, on, a beaucoup de talent. On est dans le Mandé. On a beaucoup de talent filles Sénégal, en Afrique euh, de façon générale. Hein, le Mandé, c'est l'Afrique. Ah oui, ah oui. C'est le ah berceau oui. de la culture ah oui, africaine. Ah oui, c'est ah extraordinaire. Vous, vous, vous c'est pour le grand Ah non, non, ah mais là, je ah crois qu'on va parler après. Boubou <laughs> euh, moi, de dama la gis euh, bi muy woy yaa ngi yaa ngi voyager et rarement laay gis euh, nga nga nga nga yëngatu wala nga tukki ci kuy woy waa man dama ko bëgg kii dama bëgg mu ñëw ñu benn morceau rek benn single rek man man maa koy produire non non bii moom bii moom vraiment ah offrir naa ko benn morceau bu bëggee ñu ñëw def. mais bravo. Djiby Dramé. man d'abord. woy su amee ndeysaan rek neex na ma. dégg loolu nge ngewel. Oh. dama bëgg <laughs> <laughs> alors a gis naa la nga gëmm comment tu la trouves. Euh, magnifique magnifique ah, magnifique. amazing euh, vraiment touché ah à un moment donné ñu ngi dem ñu ngi dem. <laughs> alors euh, man lu may wax rek mooy woy bi li muy wax ñun kenn enfin ñu ko dégg ci plateau bi en tout cas bëriwul. Mm-hmm, mm-hmm. te ñun ñëpp ñoo ngi focaliser wu ci moom. Mm-hmm. ku nekk di dem. Euh, donc rythme daf lay yóbbu quoi waaw wax di la voyagé loo. Euh, congratulations. Alfie da nga teg sa coude ci noir di apprécier. juste formidable comment tu la trouves. juste formidable ma chère. magnifique alors Mariama ñu ñu bàyyi la nga nuyoo macha allah bu leen ko catu. macha allah macha allah ah, macha allah il faut nga wutal ko il faut ko pétan takkal ko <laughs> ayca Mariama parle un peu avec nous xam nañu la c'est vrai gis nañu sa ay vidéo bu yàggul rek waxtaane nañu sa album bu bees mais tey li nga def nii dañoo gën a kontaan wax ñu tuuti ci liggéey bi nga nekkee allo waaw allo bonjour waaw ñu ngi lay dégg waaw vas-y waaw Pape Cheikh maa ngi invitation di leen gërëm di leen sant mbaadin mandinkool xanaa ko mooy laalu mbaal kontoon na mbaal jay la mm. mooy respect merci beaucoup euh, Pape euh, ci liggéey bi xam nga ku ci nekk moom day metti uh-huh. xam nga voilà ñu ngi ci tey mu neex suba mu naqari voilà mais toujours euh, comme ñu ngi am comme genre mag yi nii comme nu ma koy waxee grand bi. Sekou Ba Sekou Ba sama papa la ma sama tonton la voilà mhm. lépp la ci man. Mhm, mhm. donc euh, heureusement comme am nañ ñu mel noonu comme jibi comme les woykat yu bëri yi nekk fi ci àdduna bi ci mandang bi donc. heureusement ñoo ñu ngi suñu ginnaaw toujours. Mm-hmm. jàppale. d'accord mm-hmm. alors mm-hmm. génn nga album bu yàggul même si euh, grand public bi euh, xamaguñu ko noonu mais def nga ay clip accompagné artistes yu bëri d'ailleurs euh, ci fàttaliku 2015 bi am na way yoo way boo xamante ni def nga ko ak Bouba Kirikou ak yeneen i way naka naka la sa sa liggéey demee nooy nooy defee say sa liggéey. waaw waaw comme ni koy defee rek comme d'habitude <laughs> Pape Cheikh euh, toujours comme nu may wax. Uh-huh. Euh, euh, comment xam nga kenn doo mun a tagg sa bopp xam nga. man mënuma mm-hmm. duma tagg sama bopp. mais wax tuuti ci fi nga jaar itam am na am na ci am na ci solo da nga judd ci ay famille yu woykat wala da nga judd rek baat bi neex nga commencé woy. Pape Cheikh comment tu as fait ah vas-y maamam kenn du ko présenté. ndeysaan ca maam ya lay def <laughs> waaw moom kuy maamam Djibi. <laughs> kii maamam alhamdulilah rabbil alamina law na jaloore. waaw. Mahawa Kuyaate mooy maamam. Mahawa Kuyaate ah. lu mu tudd. Euh, léegi moo wax la ko waaye ay waay waay lu ma dal. oh là Sunjulu Sissoko Sunjulu Sissoko oh là mooy maamam. Ah, ah kii su woyul war na woy. su woyee war na woy <laughs> Sunjulu Sissoko Mahawa Kuyaate comme jibi nu mu ko waxee. Seeku Kuyaate. Aïssatou Kouyaté. wallaahi. waaw. kii dafa war a woy. waaw a woy. sama juróom ñaari maam yi. yëpp Fanta Kouyaté Jali Momadou Kouyaté. baax na ma Kouyaté ñoom ci famille. yooyu jógee comme jibi nu mu ko waxee. c'est maa ngi seen ginnaaw donc ci loolu la ñuy juddoo ci loolu lañu nàmp donc il fallait. ñu jéem a xaw a neex tuuti. xaw ma tubaab la tubaab la. mais mais xam nga lu ma intrigué Pape Cheikh dafa sol daal bi muy woy da ko simmi dugal ko ci ginnaaw pourquoi nga def loolu. daal di xat. <laughs> non c'est-à-dire man euh, naturel. Uh-huh. naturel damaa tàmm. di su may woy damay def tànk. yàgg na yàgg na trop boobu maa ngi euh, maa ngi am maa ngi am 13 ans. Mm-hmm. voilà ba may taxaw ci def tànk nag boobu maa ngi am 13 ans. donc xale. waaw war xale. sans waaw parfois nag moo bëgg a njool tuuti. sol talon <laughs> Mariama la tudd Mariama Kouyaté elle va rester avec nous puisqu'elle va chanter euh, ak ñun euh, bu ca kanamee Djiby Dramé ñu ngi jëm ci grand soum on en a parlé léegi nii ak Sékou Ba mm. euh, Sékou Ba ak monsieur monsieur Sarr defe naa du guleet nga bokk ci grand soum ah ndax dem nga woyu ko ba Mali c'est la c'est pas la première fois grand mm-hmm. soum woon ma fu mm-hmm. kon nag Sénégal moo aaye mm-hmm. Euh, mën na la recevoir ay gan yi macha allah. Mhm. nga xam ne kenn du leen présenté. Mhm. Euh, preuve en est que Sekou Ba Kandia ngeen di toog. Mhm. ñeneen ñi ngi ñëw Ami Koita Baba ñu Koné. Baba Ñaame Camara. Baba Ñaame euh, ndeysaan waaw Baba ñu Koné <laughs> macha allah. Euh, et cetera. kon na lu mën a mën a wax grand sumo bi dina metti lool te neex. tey jii lu mu lay def euh, nga nekk nga nekk xale dem ba suñu borom dogal nag ba nga bokk mm. ci euh, meilleurs yi ci Afrique ñu lay booleek ay woykat yoo xamante ni. Mm. da ngaa nekkoon xale. Mm. bëgg a nekk woykat di leen seetaan di leen déglu bëgg a mel comme ñoom tey ngeen bokk seen ñu respecté la lu mu lay def. sant yàlla rek. Mm-hmm. comme di français di ko wax c'est le travail góor mm-hmm. góorgóorlu xus jàll. Mm-hmm. nit ki noo doon soo ko bañee da talent baa ngi fii mm-hmm. macha allah yàlla su jàppale ma mm-hmm. ba lu ma doon ñaan yàlla tam ma nekk xale ba léegi yàlla may ma ko mm-hmm. may xam ne ndeysaan temps ba Sékou Ba Kanya di génne kasitam premier albumam fekk temps boobu maa ngi école di jàng xam nga loolu sant yàlla wallaahi tey ndeysaan su ma demee Guinée moom mi recevoir uh-huh. su ñëwee ma recevoir ko uh-huh. kon loolu yëpp si sant yàlla la bokk di wax ni euh, Mandenk lii mooy Mandenk Mandenk suñu maam li ñu bàyyoon fii. Mhm. dañ ko soxal ñu gën ko yokk parce que dañoo dañoo def bàyyi ay ba baobab lañ fi bàyyi. Mhm. lu si des rek ñu arrosé ko mu gën a rëy rek. Mhm, suñu répertoire Mandenk yëpp ngi fii. parce que mag ñi def nañ mag nañ li a def nañ ko ba pare. dañoo war a def arrosé rek mu gën a mu gën a yaatu rek. Mandenk dafa vaste. saa lu mu wax léegi Mandenk dafa vaste. kon lu mun mën a wax mooy. bég ci kontaan rek. daje men yi sama grand yi. ak sama yaay yi ak sama sœur yi. même place à tout grand sumo nag c'est a la première fois mhm. grand sumo ñëpp koy seetaan mhm. grand sumo ñëpp ko bëgg mhm. këpp koy doomu lakkat parce que soo déggee ne grand sumo nañu wax nañu waxtaan dañuy pelloo nañ kermesse nañu péri yi <laughs> non non <laughs> mooy mooy grand sumo périer leen périer leen yi comme kuy périer dañuy grand sumo moo taxat euh, incha allah rabbi. Euh, acrobatie ko acrobatie ñu fekkee tal soobee yàlla dina euh. métti parce que grand parolier ñoo ñoo nar si géew gi. waxkat yi ñoo toog. te mag yi ndaanaan yi ñi xam ne mooy suñu maam suñu papa yi. ak suñu yaay yi ñi xam ne dëgg nañu lakk lool. ñooy dëgg wax ngéwél. dëgg la te wax ngéwél. ni nga ko dégg mu si lenn nga ne wax parole ñu koy déggee. Mhm. te te te ñoom. c'est li tax seen seen jotaay yi neex day gis bu woykat bi wooyee am ko kebetu. bina gana bala bala awle bulo kolo kolo bulo ina ngolo kolo bina na kamulo la la ngade gijibi eh bala soro ina ra bulo kolo bolo bala na ina bolo le gele bolo awle bolo bolo bolo la kamule ne bolo bolo oh la la ina bolo kolomon na ani bolo kolomon. oui oui Pape Cheikh Pape Cheikh Pape Cheikh. on va applaudir pour lui Pape Cheikh Pape Cheikh. Pape Cheikh comme la. Pape Cheikh lu tax ngay def lii nag. bëgg di jël ma rek yàlla na casting laay def ci kanamu monsieur parce que parce que je souhaite jour u grand sumu bi quand Djiby Dramé chante. que que je prenne le micro. il chante rek je fais ina bolo kolomon lolo. aw na bolo bolo bile fii la la. ina folo la la la. ina fele fele est là et c'est magnifique c'est un autre monde parce que à chaque fois nga seetaan spectacle mondain mm. on dirait que voilà yaa ngi feneen quoi yaa ngi feneen ba pare ba pare ñu ñu seetaan ak aussi ndeysaan ku euh, mandeng boppam uh-huh. ku déglu uh-huh. boobaa de retrouver boppam mm. même su dee maire yoo xam ne mën ñu bouger sax mm-hmm. ñu xool seen écran petit écran bi seetaan boobaa dañ leen fàttali ko démb ak barki ah oui quand je vois Ami Koïta euh, euh, dañu ko bëgg te defe naa gëj na fii ah na fii gëj na fii euh, elle est déjà là moom mu ngi Sénégal déjà elle arrive cet après-midi naka la ko gisee naka la koy préparé peut-être waxtaan nga ak moom monsieur Sarr qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a dit disons que kontaan pour ñëw Euh, Sénégal. Mhm. ñëw jàkkaarloog euh, maanaam public bi. Uh-huh, uh-huh. def une prestation. Uh-huh. waxtaan ak ñoom. comme ni comme ni ko Jibi waxee léegi. comme ni nga ko rappelé tout à l'heure mais Grand Soumou jotaay la. waxtaan la. diisoo la. te lépp. dafa xaj ci biir grand suma man de tàppalu naa donc dina ñëw daal yow yow moom wax nga <laughs> ba pare bi ma soloon euh, nuyu di bassin rek laa laa tàppaluwaat barki démb dama ko yóbbu yaaselem ñu tàppaatal ma ko rek moom la excellence daf ñu nax parce que préparé na ko <laughs> préparé na préparé na ah, ma bett euh, euh, Sékou Ba qu'est-ce que ça vous fait à votre à votre actif vous avez plus de dix albums vous faites les les les plus grandes scènes du monde qu'est-ce que ça vous fait de voir ces jeunes qui s'imposent comme il faut sur le continent en Guinée au Mali au Sénégal Sénégal euh, je pense que vous devez être fier de ces de ces jeunes artistes là. très fier mm-hmm. parce que euh, c'est c'est une fierté pour l'Afrique même. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, quelle qu'en soit la durée de de l'homme tu n'es pas éternel. Mm -hmm. Nous nous avons remplacé d'autres générations mm -hmm. et d'autres générations vont nous remplacer aussi. Mm -hmm. Donc la vie c'est la continuité. La musique africaine doit continuer comme ça. l'Afrique, elle a sa valeur. Mhm. La culture africaine. Vous savez, si nous parlons de Mbalak partout dans le monde aujourd'hui, on te mhm. parlera du Sénégal. Mhm. Hein? Si tu parles de, euh, de Coupé Décalé, on te parlera de, de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'identité d'un pays, d'une nation. Donc bravo à la, à la, aux musiciens, aux artistes africains. Bravo à la nouvelle génération. Ils n'ont qu'à continuer, qu'on soit persévérant hein, pour la continuité. Et, Djiby Dramé, quand je suis devant euh, la télévision à partir de la Guinée, mm -hmm. en le voyant, mm -hmm. c'est une fierté. Mm -hmm. hein? et ma sœur euh, Mariam, Mariam, tout à l'heure, uh -huh. hein? quand je vous ai dit qu'elle m'a amené là où elle voulait m'amener, mhm. c'était euh, le fond de son cœur. Mhm. Mhm. Ce qu'elle exprimait, vraiment, ça m'a fait voyager. Je ne suis pas le seul, les téléspectateurs aussi. Ah oui, le Nous étions content. tous euh, ouais. dans le même vol. Donc bravo à la Air culture Manu. africaine. <laughs> <laughs> alors balaa ñuy euh, balaa ñuy dem ci euh, buuba ak li ko feeñu parce que mu ngi toog rek mel ni xale bu réer. Mariama <laughs> euh, wax nañu fi nga bokk noo def boo dugg ci way yi waaw comme tout à nu ma ko waxee mhm. ma ne sama juróom-ñaari maam yépp mhm. ay woykat lañ mm-hmm. euh, c'est pas force comme nga baal ma. Mhm. Euh, ngeen baax en fait allez xàkkoo bay nañu c'est pas c'est que sa juróom-ñaar maam yëpp ay mhm. waykat lañ da nga mhm. war a doon waykat. sa bàyyi dekkee docteur bay opéré màggal seet bañ koo jàng dem di opéré ndax di nga xam biiru jàmbur ko seet. <laughs> <laughs> da a baax na ci mais après c'est force euh, sa juróom maam yëpp ñu doon waykat nga nga way. waaw force mais il faut euh, danga nga war a jàngi. donc jàng naa tuuti comme ay école yoo xamante ni. Euh, Sénégal fi ñu bëri xam nañ leen. donc si euh, ay école mën naa ne ay école la ko ma jàng ba léegi maa ngi jàng. Ah. Ah. Mhm, mhm. donc euh, dama ko jàng. Mhm. ba pare en même temps ma nàmp ko tamit mu ngi sama deret. donc man nag bëgguma woon nga baal ma Pape Cheikh ngeen baal ma bëgguma woon na jëloon xalaatuma woon ndax damay doon. woykat man <laughs> dama yaakaar damay doon ñawkat. laa ah, bëggoon ah waa dama noonu damay ñaw. Uh-huh. donc su ma demee ci école bi. Uh-huh. comme ci ñaw bi laay gën a nekk concentré ma man loolu laa yaakaaroon comme fait. d'accord d'accord voilà mu jékki-jékki rek un jour ma dem ak sama mag. Uh-huh. bu góor lamin Koyaate. moom ma njëkk a taxawal sur scène. waaw jox ma micro ba may am 12 ans. naka la déclic bi demee noo jékki-jékkee rek ne. da ngay way alors que yaa ngi def ñaw. xaw ma dama um, loolu laax nii man woy euh, ñaw laa jëloon excuse-moi ñaw laa jëloon sama bopp si sama bopp si sama xalaat. loolu laa bëggoon doon. ok ok don. Ah, c'est le don ah, kay mm-hmm. <laughs> léegi nag dama jékki-jékki rek. nga teg ciseau bi waaw. nga teg ciseau bi euh, jékki-jékki rek un mu am benn affaire ba amoon yoof ah, benn festival ba amoon yoof donc ak Lamine Kouyaté moom moo ma njëkk jox micro may lox nag. boobu jour bi parce que nit ñu bëri ñoo fa nekkoon. donc ba léegi nii sax waaw mais. et depuis et depuis loolu affaire bi affaire bi commencé. waaw mu métti maa ngi jàng ba léegi nii ah maa ngi jàng ko. maa ngi ci ginnaaw. très bien bu ba. man en man amoon naa benn question. par rapport ak ak musique mandeng bi en en mm-hmm. général. Mm-hmm. parce que boo boo seetee. Euh, ci euh, yenn artistes yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a euh, indil satisfaction si continent bi. Mm-hmm. da jël ku mel ni Mori Kanté. Mm-hmm. boo xam ne quand def na ay ay ay tubes yu mag. Mm-hmm. Ah, jël ku mel ni Salif Keita. te boo seetee si si si way yi ñu def. dafa dañu dem benn moment ñu mélanger ko ak beneen musique mhm. et moo indi ay nu mu tudd yekkee yekkee yekkee yekkee mhm. am na ay morceaux aussi euh, euh, waaw mhm. euh, Salif Keita loolu mooy wane ni aussi pour man techniquement yéen ni ngeen di wayee ak façon mélodie yi ngeen di way dafay mën a adapté wu ci musique moderne benn question rek laay posé pourquoi ngeen aussi des trop si si côté traditionnel bi est-ce que aussi waru leen gën a mën comparant boo gisee artiste bu bu ndaw. Ah, buy doog a door est-ce que aussi warul gën a indi touche modernité parce que dafay am ubbi yeneen bunt si si international bi mhm. parce que boo seetee Mori Kanté mhm. y a toujours le le côté original le côté africain mhm. mais aussi rythmiquement ça ça fait que dafay évoluer et day si nopp européen yi ça ça sonne bien dañ mën nañ identifier aussi si loolu donc man tout le temps ça veut dire que boo ko produire da ngay waaw damay pas changer musique non non damay damay jël loolu mais pour uh-huh. indi beaucoup plus d'ouverture donc tu réclames plus d'ouverture par rapport Parce à que, cette euh... non surtout la gamme malienne la moom moo gën a sax accessible que okay. la gamme bu Sénégal loolu c'est une chance je pense qu'il faut gën a plus gën ko je pense que chacun va répondre à la question les les artistes ñoom ñu dinañ ci tontu wala tey sa calebasse rek Mariama la ñu eewi <laughs> ngay laaj micro kii lu ko dal calebasse <laughs> ne prends pas le micro hein. non mais c'est grave. depuis quand un musicien ah, accompagne un artiste. Bouba naan wala donne-moi le micro. pour que tu parles de ah, quoi de gamme. am na non je blague am ah, na benn am na benn chanson bu ma bu ma def benn album international. Mm-hmm. Euh, tout récemment ñu gën a Bordeaux. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. Euh, boobu album boobu. Mhm. Euh, single boobu sax laa bëgg a ngeen euh, incha allah. pour ne ko petit écran bi gars yi déglu ko. pour sa album international bi ngay préparé préparé. très bien comme lu nga wax noonu son bu nga wax noonu. Mhm. pour point ñi rester rek toujours. Euh, si même euh, rythme bi. waaw parce que man bu ma la njëkkee dégg nga baal ma. Mm-hmm. bu ma doon dégg Djiby Dramé avant. Mm-hmm. dégg xaw ma ko woon. Mm-hmm. dama naan dégg muy mu sol yëre yi et tout benn jour ma nekk kër yàgg naa. ma taal télé bi ma dégg ko muy way. mais lu ma njëkk a marqué si moom mooy pour man moom dafa yore benn voix soul bu diis. bu fondamental bu am doole. mais tout le temps damay wax que ni pourquoi du explorer aussi. yeneen affaire même même parce que mën ngeen garder bi sax li muy way nii. boo ko bindoon ci olof mm-hmm. mélodie bi dafay resté mais dafay gën a ubbi day tax mm-hmm. parce que olof yi fii mm-hmm. ce qui est dommage mooy que ubbeekuwuñu ci yeneen musique yi c'est dommage parce que moom pour man artistes yi nekk fii di way ci olof dàqu ko way mais mais musique aussi bul ko bul ko fàtt fenn rek il faut nga ko ubbi loo ko gën a ubbi mu gën a mu gën a parce que ça peut être euh, ça intéresse euh, mm. Sékouba euh, parce que oui ko pourquoi pas an y'an sigi dɔrɔn an k'an jɔ ils font in na dɔrɔn siɲɛ kelen. yɔrɔ mm, mm, mm. ouverture international comme Sekouba comme Mori Kante kana Salif Keita. <laughs> Euh, comment faire pour mélange euh, pas traditionnel et partir ouverture. c'est vrai. Ah c'est une bonne question <laughs> parce qu'il faut reconnaître que ce troisième millénaire, le grand rendez-vous entre euh, l'Occident et l'Afrique, l'Occident nous apporte la technologie, mhm. nous les Africains nous apportons notre culture. Mhm. Mhm. C'est tout à fait normal. Et c'est la mondialisation. Ah. On est obligé. Le Salif Keita, Mori Kanté, le Youssou Ndour ils ont compris. Mhm. Ils ont très compris tôt. ça très tôt. Ils ont compris ouais. ça très tôt. Ouais. Et c'était ça, c'est ça la valeur de l'Afrique aussi. Mm -hmm. Mais on ne peut pas aller seul. Mm -hmm. hein? Il faut qu'on soit accompagné. Mm -hmm. Même quand on voit et, certains appareils, comme euh, par exemple ma, Microsoft, ce mhm. n'est pas Bill Gates seul. Mhm. Hein? Il a été accompagné par quelqu'un d'autre aussi. Fait, Donc l'Afrique, il est temps pour nous de se réveiller, de savoir qu'il il faut être vraiment euh, en contact avec euh, d'autres, mm -hmm. comme la Koura avec euh, mhm. les instruments modernes, mm -hmm. hein, pour que les autres aussi mhm. Mhm. se sentent dans notre musique. C'est ce que les, les Nigériens ont compris. Et, ah oui, ils ah ont oui, compris ça. Ils très oui. bien. Mais, en Afrique de l'Ouest, on tarde à, à, à parce qu'en en fait, en réalité, c'est. Donc je pense qu'il est temps, il est temps aussi. Voilà, Mariam, qu'est-ce que tu en penses voilà voilà comme je veux dire comme Dieu xamante ñu ngi ci. Uh-huh. Um, ñu ngi ci liggéey uh, grand booba nu mu waxee nu mu ko waxee c'est dëgg la. Uh-huh. donc uh, ñu ngi ci kawam ci liggéey toujours en fait instant yi nii ñu ngi ci liggéey bu baax a baax gën a ubbi. affaire yi. parce ah, que bi may produire ay day am. <laughs> la ah. léegi léegi léegi léegi euh, euh, dañu bëgg nga demal ñu feneen euh, bu ko defee xam naa di nga yëngal tuuti Sekouba ak Jibi ak suñu xarit ci nga xam ne ñoo xëy tey dañu seetaan ñu àndandoo ci yeewu leen spécial Mandeng la ah. en attendant ñuy def ak moom night show. suma yaara kii fu mu nekkoon. <laughs> ci dëkk bi rek. magnifique macha allah. ñoo ko bokk ñoo ko bokk et puis je rappelle que euh, dinga nga nekk invité night show vendredi bu soobee yàlla. voilà vendredi ci guddi dina dinañu woyal ñu waxtaan ci lu bëri euh, ndax am na yu bëri yoo xamante ni yaa ngi koy préparé muy ay tournée ay spectacle et je reste convaincu qu'au sortir de cette émission euh, production bi sax dina am comme ba ma defee euh, comment dire album bi album bi jéggulu mhm. dañ ko génnee si décembre bi la génn mhm. euh, donc am na yeneen affaire yoo xam ne ñu ngi ci boobu ba tey ci liggéey bi lañ nekk mhm. jéem a xool comme nu ko boobu waxee tout à l'heure nekk di liggéey si musique si musicale bi en fait euh, loolu ci kaw loolu si lañ nekk donc am na yeneen affaire depuis boobu nag ba album génn war na woon def benn tournée. Mm-hmm. Inde Nigeria. Mm-hmm. Euh, dem représenter Sénégal. Mm-hmm. Euh, je sais que xam naa ni bëri. xamuñu ko wala ñu bëri bàyyi ñu si woon xel. dañoo jàpp donc. loolu tamit bokk na si toujours si Afrique. si Sénégal man toujours damay def lépp. pour Sénégal comme sama maam yi ni ñu koy defee. ak sama mag yi représenter Sénégal toujours sama maam yi nijaay yi ñu nekk waykat yi nekk Sénégal ci uh-huh. Afrique monde bi yëpp. voilà voilà en tout cas nous nous de toi ñëpp a kontaan naa. félicitations donc pas encore. abaraka mbadi mandinkol anaka moy laalo mfala fom bala ndokola euh, no sokono carrefour jarome madina wandi fa ñamre ba siré ba jiweto mhm. mbamani ndokol ah Ziguinchor Kol Casamance donc mbool euh, moom lay représenter donc ak euh, tout ak Afrique yëpp donc su ma nee Casamance fii fu laay wax. ñëpp nga wax quoi Sénégal yëpp. très bien très bien merci beaucoup. voilà encore. voilà alors tu restes avec nous Mariama Alfi suñu blanquette fan la toll. Euh, Pape Cheikh yàpp bi ñor na. Uh-huh. donc euh, ma taalaat gaz yi parce que dama demoon dama voyagé woon. <laughs> ça fait voyager. donc dama fayoon dama fay gaz yi pour bañ mu <laughs> xam. <laughs> donc Pape Cheikh comme ni ma ko waxee sànq dañu jël euh, yàpp bi def ko ci farine. Mhm. donc euh, revenir ko ci dëwlin bi. Mhm. bi ñu paree ñu def ci benn soble ak benn laaj bu ñu daggat. Mhm. def ci ay rondelles de carotte. ak champignon bi ñu fi amoon tout à donc bàyyi ko mu mijoter ñu def ci ndox. donc euh, ñaari façon ah parce que blanquette am na yoo xam ne dañ koy démarrer ak lu mel ni genre soupe ak ndox. tey bii dama dama choisir saisir yàpp bi pour suñ koy lekk ñu am plus de goût. léegi li ci des rek finition bi mooy dañ koy lier ak benn jaune d'œuf maanaam da ngay jël jaune d'œuf bi def ko ci biir sauce bi remuer directement pour mu bañ a ñor. ah donc tu as pris. Euh, euh, jaune jaune de l'œuf nga def ko ci biir ah. ko biir sauce bi. donc jël crème fraîche léger moom tamit day dem crème fraîche. tout à fait dafay dem ci biir dafay dem ci biir sauce bi daf koy lié. Euh, mais toujours Pape Cheikh xam nga du ci mën a ñàkk beurre Sofia. Ah. parce que moom la ñu enrichir en vitamine A E. Ah. moom tamit dañ koy def ci biir euh, sauce bi parce que soo defee beurre ci fin wu son bi. daf lay permettre nga am sauce bu brillant. sauce buy briller. donc moo tax tout le temps soo en cuisine bu nit ñi di togg dañuy jël en finition jël tuuti beurre rek def ko ci biir. Mhm. donc ça nous permet suñu paree ñu am benn sauce bu assez lisse assez brillant donc euh, am nañ fi tamit ñànkatang bu ñu togg léegi ak carotte moom tamit ñor na donc le temps que ngay findi ngay terminer rek Pape Cheikh ñu bàyyi waat encore 5 minutes sauce bi tàngaat. ñu ñëw rek servir la Pape Cheikh service invité yi. kon ñu bàyyi la nga defar ko 9 h on va on va on va on va rapidement balaa ñuy ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, pour revue de presse bi xool ce qui se passe ailleurs chez les stars euh, ñu ngi ci festival de Cannes et baa ngi ñëw ak robe yi tendance bi jour. Mm-hmm. Pape pourquoi robe yi parce que nekkul Cannes kese nga war a mun a solee robe. Mm-hmm. Euh, ñun tamit jigéen ñi am nañ fu ñu war a mun dem sol suñu ay robe mais avant dañuy de Cannes xool yoo xamante ne man ma ci gën a attiré ci yi fa et ñu xool ban moo ci dàqal waa plateau bi ñu commencé ko par première robe bi Jane Fonda. Mhm. moom c'est vrai que actrice bu mag la mère la léegi comme ni ñu koy waxee mais bàyyeetu ko xale yi parce que ci euh, festival de Cannes bi dafa ñëw ci tapis rouge bi ak benn robe Versace en caddie de soie bleu. moom la ñuy gis euh, ci photo bi nii ba pare ut ay tuuti décolleté am tuuti transparence même si dugal na ci tuuti comme transparence bi ñu doon wax la dernière fois ah. que temps yi nit ñi dañ ko xewal donc robe bi coupe bi nice na te daraam feeñul donc mun nañ jàll ci deuxième robe bi c'est euh, Eva Longoria moom moo ko sol dafa ñëwoon Cannes parce que ren lay fêté 10 ans yu mu def ak L'Oréal L'Oréal tout le temps Cannes ñoom ñooy presque coiffé maquillé ñëpp mhm. donc euh, moom robe asymétrique volant le sol Versace moo ko defar toujours moom dafa mel ni moo solal actrice yu bëri mhm. ci bi passé l'hôpital Ñongo chaque chaque jour dama koy yoone mhm. ñuy def que mhm. man c'est une fierté pour moi mhm. bu dem ba am euh, yenn place yi au niveau il faut que ñu koy wane donc moom robe Gucci vert émeraude la sol ba pare ñu brodé ko <laughs> ñu brodé côté yi ak ay euh, fleurs am na benn euh, quatrième robe mousseline de soie joor euh, moo ko defar pour euh, Charlize Theron mhm. donc mooy rob bi ngeen di gis en image nii et dernière robe bi bi ma bëggoon wane démb a Shayk tout doré la def comme ni ma leen ko doon waxee démb mhm. euh, Versace voilà Versace moo ko solal ba léegi elle la robe elle ba pare bi ci suuf dafa am ay cristaux Swarovski mhm. donc cinq robes yi ban moo leen gënal yéen ñi yëpp rafet de yëpp rafet peut-être bu Awa Longoria moom day rafet na moom nay awa day robe ba mu rafet na ba saf saf na ah. Euh, en fait je préfère dajale bu gën a bon la bëgg. bi ñu bi ñu xar indi ko bi bu xar bi. bëggul yi yëpp xam naa dadi xam naa dadi. jox ko beneen biir indi leneen yi. non non ba tey bëggul bi xam naa dadi. ayca bëggul bi ba tey <laughs> dadi lii ko inter. <laughs> Jibi yow yow mi nga xam ne ci lu rafet ngay dox par rapport ak bazin robe euh, yi est-ce xool nga ban moo la ci gën xool naa mais man je préfère euh, bleu bi. Ah, bleu waaw parce que franchement de maanaam da ngay sol moom. bu nay robe bi wala wala bu bleu bu njëkk bi ah. ah d'accord c'est vrai que dafa rafet ba pare dafa yiw moo leen si gënal mhm. euh, je préfère cette tenue africaine. quelqu'un qui porte ah. voilà. de toute façon man tout le temps je la mets. parce que pour moi c'est une fierté. Mm. elle est très jolie. voilà parce qu'elle est latine. Ah parce qu'elle est ah, parce qu'elle est latine. ah d'accord man yow monsieur Sarr mais man je d'accord. la robe verte. <laughs> voilà. bleu couleur au Mmh. pratiquement toutes les célébrités bleues la ñu sol. ah bijou yow nag. man doré. et toi la dorée. toi man Awa Longoria. moom Awa oui non kii ni awa li muy def elle le vaut bien moom. oui oui la valez bien. voilà c'était donc quelques robes yu ñu sélectionné par rapport au festival de Cannes comme ni ma la ko doon waxee tout à l'heure je pense que année yi passée robes yi ñoo gënoon nice que c'est ce que j'ai remarqué cette année-ci après on verra l'année bii di ñëw mais du jigéen ñëpp ñoo mën dem festival de Cannes foog nga nekk actrice wala nga nekk benn célébrité pour ñu invité et pourtant ñëppay bëgg a sol robe t'es pas obligé de mettre des robe de cérémonie. Mhm. am na ay robes d'été mun nañ jàll ci robe yi nga xamante ne euh, printemps été 2015 ci kaw podium yëpp presque ñëpp a ko defar mais dañ ko modifier dafa am benn évolution bu ci am parce que dañu jël euh, décolleté bi gën ko yéegal. Mhm. ba pare def ay couleurs yu soob ba nga xam ne di nga ko mun sol dem liggéey yi dem cocktail bu fekkee da nga bëgg a génn ak moom dem soirée wala benn mariage mun nga ko boole ak chaussure à talon euh, bu fekkee par exemple danga bëgg juste dem liggéey mun nga ko boole ak ay dàll compensé mun nañ avancer ba ci dàll compensé yi pour ñu mun ko gis voilà comme genre dàll yi bu fekkente ne plage tamit nga bëgg dem wala juste benn doxantu bu sew mun nga sol ay euh, ce qu'on appelle des tongs wala tamit euh, ay sandal nga xam ne di nga mun a génn ak moom. mais boo gàttee comme kii ak Mado yi mooy gën. yi voilà compensé yi même boo ñoolee ah mun nga ah. sol compensé parce que c' très très beau. donc euh, c' est des robes tàngaay bi dafa siy neex da ngay féex doo yëg euh, tàng nga te te pas. Jeffrey Kambel xanaa moom Boubacar Kambel ñeent ñoo bokk. damay laajte rek waaw ñu bokk voilà <laughs> <laughs> ci Jeffrey Campbell ñëw di wax parce que dañuy wax que festival de Cannes bi ñu jógee léegi euh, ku fay dem ci tapis rouge bi tu es obligé de sol daal donc bi ñu ko waxee euh, mu créer polémique parce que am na ñoo xam ne pour des raisons sanitaires mënuñu sol dàll talon. Mhm. ku ci nekk am na raison yoo xam ne moo lay euh, obligé ba munoo sol ay dàll talon pour yëg ci kaw tapis rouge bi. Mhm. donc bi ñu ko waxee ñoom dañu def euh, benn Twitter pour démentir ne que kaan smoking lañ exiger góor yi. Mhm. jigéen yi robe de soirée mais jamais au plus grand jamais. musuñu bind ne talon tu es obligé de les mettre. ah d'accord voilà ah, ñu finiree toujours dàll yi nga xamante ne je que mooy nekk mode bi. Mm-hmm. uppingal ba moo ko moo ko soloon ba pare foto ko posté ko Instagram. moom déjà dafa niroog daal lii. daal lii ay bopp doomu tubaab a nekk ci biir. voilà <laughs> mu dugal ko ci biir pour les écraser. voilà ah, amul message. Euh, franchement je sais pas pourquoi elle a fait ça. d'accord elle les a juste portés elle a trouvé ça amazing comme elle a dit dans son message. ok Boubacar Kambel di astafurlah Jeffrey Kambel mooy defar daal lii wala. Pape Cheikh xam nga yow damay a rek je veux juste savoir ah defaru ko d'accord <laughs> voilà merci euh, pour Tendance World ak euh, Bijou ak euh, Festival de Cannes bi léegi mu jeex donc c'est ce qu'on pouvait dire jëm ci nga xamante ni moom la ñu xewal ca bitim réew on va retrouver tout de suite Mamadou Mohamed Ndiaye pour revue de presse bi monsieur Sarr donc rendez-vous est pris demain pour li nga xamante ni moo di grand sumu lan la ñu war a am comme information pour suñu xarit ci nga xamante ni ñoo ca war a dem numéro de téléphone ou fan la bii di jaayee comment faire pour fekkee ko yii ñu ngi koy jaayee Bamako création ci marché HLM. Mm-hmm. ak Chalar euh, couture. Ah, ci Sacré Cœur euh, complexe Chalar di nga ko am ku dem bureau euh, africable aussi di nga ko am ku dem théâtre national de Sorano également di nga ko am. d'accord d'accord lii ñaar rek mooy ñëpp ñëw. Uh-huh. ñu bokk béggee lépp daal. waaw jërëjëf voilà alors Sekouba merci d'être quand même passé nous voir. merci d'être là au Sénégal. on vous adore. merci pour tout ce que vous faites pour le pour le continent. Euh, qu'est-ce que vous proposerez demain au, au public une très grande surprise. Mm -hmm. Mais quand même, venez, vous allez recevoir beaucoup de choses. D'accord, hein? d'accord. Voilà. Et nous allons euh, délivrer. C est, c est... on va faire un délivre demain. Hein? Ah. Diggy, c'est sûr, non oui, Voilà, Babani, Kone, mm-hmm. Amekoita, tout hein, ça. Ces grandes divas de la musique ah africaine. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Et... quelqu'un qui a plein de surprises. Venez voilà, seulement. Voilà, venez. Djibi, <laughs> kon rendez-vous suba. incha allah rabbi euh, ñaan naa yàlla euh, macha allah comme d'habitude rek. Uh-huh. c'est pas la première fois grand sumo di am Sénégal. lii mooy euh, je crois euh, troisième fois. Mhm. non quatrième fois. Mhm. kon quatrième fois kon nag euh, public fidèle. Mhm. kon nag ñu ñëwaat rek jàkkaarloo ak ñun day métti soobee yàlla incha a waaw day métti yow maman chérie lu ngeen nar suba foofu. waaw suñu naree maman chérie moom moom dem na Bamako tey la war a ñëw. incha a ah d' accord d' accord dafa dem jëli yére yi wala. waaw yi la ñoo jëli <laughs> comme comme dañuy préparer aussi nuit du bassin. Uh-huh, le 25 uh-huh. juillet incha rabbi. Mm. mais nuit du bassin bi ñëw na de parce que après koor la. après koor gi incha

ci kanam ndaw yi bët ko moom incha allah je crois que partenariat buy door la mhm. nga may ñu aussi remercier euh, Thierno Diop TDK mhm. vraiment jàppale nañ bu baax a baax Thierno dafa baax Thierno dafa baax donc yéen ko gën a xam mhm. bon aussi ñu remercier euh, Fat Tambidou muy la ministre Soninké qui est la ministre de la requalification et la restructuration des banlieues jàpp na ci def ñu benn capsule boo xam ne. Mhm. bu mu wàññeeku léegi dañ ko yónnee ngeen teg ko. incha allah ndax moom itam te day wax ci français wax ci soniñ ci soniñ loolu am na solo ñu wax ko. ñu ngi leen di gërëm bu baax monsieur Sarr rendez-vous donc suba ca euh, théâtre donc bii mu ngi Sorano mu ngi HLM euh, mu ngi aussi euh, ci bureau Africable ñu ngi ciy nuyu ñëpp nag man saa yu ma déggee grand sumu sama xel dem ci Fatou Francesca Diafouné bu télévision nationale moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax ak Tata Fanta Fifi Kanté Euh, ñooñu dama leen di xalaat à chaque fois événement yu tool nii am euh, Mamadou Mohamed Ndiaye la ñuy àndal léegi nii ci revue de presse bi laataa ñu tëj ak euh, Mariama Kouyaté je rappelle que vendredi ci guddi moom mooy nekk invité night show dinañu gën a waxtaan ci carrière bi mu gën ñoo woyal lépp loo xamante ni moo ngi ci répertoire am et puis buuba am na loo ko dikka ah? wax ma loolu de sama gént gi nga xam ne saa yi moo ko sama penda <coughs> yéri joxe nga kii non non garaawul quoi garaawul quoi damay bàyyi penda gi nelaw voilà <laughs> ah, waaw waaw waaw Mariama vraiment ce serait un ah plaisir ah oui def ah benn affaire ak moom. en tout cas jox naa la loxo yaay seet. <laughs> ak yow ñu dem ci revue de xaw ma xaw ma non. xalaat sax thème de de. la tudd ah. sa mag mi ngoog. magam la nii la tolloon ah, nii. nii boobu ba tey muy woy. da cee yàgg moo tax bu ci tekkiwul dana ma jaaxal torop. yow noo tolloon boobu xanaa nii <laughs> wala nii. Pape ñu dem ngir yàlla Pape ñu dem ngir yàlla. Mbuba. ah day retraité. <laughs> ayca revue de presse bi la ñuy jeexalee ak Mamadou Mouhamed Ndiaye laataa kepp si di ñëw ci euh, permanence jërë ngeen jëf. boo bëgg ma doore ko. foo dem baax na man doo ma dugal. <laughs> mu indil benn waxu fajar. dafa dem ba ma xaat ma kon ñu dem waaw ayca. dema jërë ngeen jëf. door observateur voilà mi ngi ci xëtam mu njëkk observateur xëy dellu si. aju ci waxtaan boo xam ne seq na ko ak Modou Diagne Fada bokk ci Parti démocratique Sénégal Modou Diagne Fada mi nga xam ne fan yi ñu ngi koy waxtaane ndax nee nañu dafa am benn pétition bu muy signé e, seq ko gars yi Parti démocratique Sénégal yi ngir bëgg ñu tasaat parti bii di PDS gën koo defaraat yéene bi jox na k gi Modou Diagne Fada li mu leeral leeralal ko à toppit mooy mu jiite parti démocratique Sénégal jël kii di Karim Wade def ko président lii mooy li nga xam ne moom lay xeex mais ci populaire dafa mel ne dañ ko faa tontu ndax ca wet ga yéen a ngi gis Babacar Gaye mu mel ne ko naan ko suma rak bul dof PDS ab euh, Abdoulaye ko moom moom mooy maître moom mooy yore carte gi moo koy doxal loolee kàddu la yu Babacar Gaye wax jëmee ci kii di Modou Diagne Fada mais moom Abdoulaye Wade témoigné lim ñu xëy xamal mooy mi ngi bëgg a yàqule ndax euh, lu ci parti bi nga xam ne yàgg na koo doxal moo ko jiite témoigné mooy wax nee na léegi parti bi ñaari làng la bii Abdoulaye Wade ba ca des Modou Diagne Fada ñi ànd ak Modou Diagne Fada sax li ñu wax mooy parti démocratique Sénégal ku bëgg a euh, parti bi dund doo ko jox Abdoulaye Wade ndax wàllam wéy na na ñu seet keneen ku ñu ko jox ñu jël grand place fekki fa Aïssata Tall Sall mi nga xamante ne mooy maire bu Podor Aïssata Tall Sall bu parti socialiste Aïssata Tall Sall li ko firndi mooy neexul parti socialiste eh, te mbir la moo xam ne yéenekaay bi ne nañu gars yi eh, socialiste yi ñu cee wax buñ ci waxul nag réglé ko ba mu lijjantiku ñu dem ci élection bu ko defee dañuy perte nord bu Sénégal ndax foofee Aïssata Tall Sall moo fa teg tànk ñu teg suñuy gët pap ci le soleil bu dee yemb na mbiroo ngi ko doon liggéey euh, jàppandi la le soleil Euh, le soleil kon yeggseegul li am daal ci xët mu njëkk le soleil moo di buuru Maroc Mohamed VI bi nga xam ne yeggsi na démb ci euh, réewum Sénégal mu di euh, visite boo xam ne dana ko fa amal ak teeru bi nga xam ne teeru nañu ko ba tey la sit wax na ci teeru boobu mais comme yembul Pape dañuy bàyyi loolu te dem ci yéenekaay bii di enquête enquête xëy dikk ak ñun ci loo xam ne ñu ngi koy waajal Macky Sall mu di front anti Macky mm. ñu koy taxawal yéenekaay bi xëy ci indi Idrissa Seck Abdoulaye Balde Omar Sarr Cheikh Bamba Dièye ak Mamadou Diop Decroix Djibo Ka yéenekaay bi nañu démb takkusaan ba timis daje nañu ko kër Diop Decroix ngir di fexeel Macky Sall di ko waajal ak di xool nan lañu koy génnee eh, ci eh, bopp mu Sénégal populaire li mu ci wax moo di ay opposants yu ës gën a ëngës la Eh, jàmmaarlu ak ki nga xamante ne ji moo di Macky Sall eh, ca ñooñu yéen a kaay bi boole na seen i photo teg ca Idrissa Seck ma nga ca waaye Idit mi ngi ci direct info lan moo ko fandi kàddoom yi nga xam ne yëkkati na ko bu yàggul yéen bi nañu dafa yëngal république bi ba tey direct info di laaj ana lan moo tax moom Idrissa Seck bu ne tëll rek gars yi mel nañu tàggoo seen sago nga di eh, lox pap mhm. maire bu Dakar xalifa Sall mooy Khalifa Layeen yi. lu tax quotidien moo bind loolu ndax démb ca cérémonie officielle bu appel bi. Mhm. dañ ko fa doon wax baax. Ah. benn kolof di waxee mhm. te bi ñuy def loolu yéenekaay bi nee nañu délégation gouvernement mi ngi toog loolee la yéenekaay bi wax fa lañ ca mën a yam mhm. mais bari na kàddu yoo xam ne yëkkati nañu ko fa mhm. bawoo ci ki amee kàddu njabootug laayeen mais le quotidien moom loolee xëy euh, indi ci xëtamu njëkk sunu làmb ñëw ñun ci Tigre de Fass ba woon mu di Tafa directeur technique bu écurie Fass nee na jamono combat bi nga xam ana sunu làmb ayta tegal sunu làmb ñu xool ko ma sunu làmb anamu. wuyu ma ah waaw maa ngi. Pape ah. ne sama maam daan ah. Ah. nga ni sama am lu mu daan wax. <laughs> mu ngoog mbokk fii lañuy ñuy jaaree jeexal yeewu leen bi tey 9h54 euh, juste permettre euh, mu woyal ñu bu ko defee euh, ñu tëj Alfi ñu ngi lay gërëm bu baax suñu blanquette pare na. pare na Pape Cheikh ma koy offrir Mariama. et uh-huh. on vous souhaite une bonne dégustation et à demain Pape ah Mariama nga jëlanteel. waaw tey moom laa jëlanteel. <laughs> merci Kia. mën naa nga uh-huh. baal ma tuuti rek ma waxaale comme si album bi laa ñu uh-huh. produire euh, album bi. comme ñu nekk directeur label Blue Saxo euh, Thierno. maa ngi ko remercier bu baax ak moom ak jabaram ma jigéen. di leen nuyu bu baax mhm. ndax jàpp nañ ci ci affaire album bi. très bien baax a baax. di leen remercier encore. Uh-huh. merci voilà donc vendredi nañ ci gën a waxtaan euh, Kia merci beaucoup ba gannaaw waati waati waati waati waati suba incha allah. Uh-huh. lundi incha allah lundi. Euh, bijou si. Euh, waaw balaa lundi dafa am benn annonce bu ma bëggoon def rek dafa am benn xale boo xam ne dafa réer. Mm-hmm. Habib Sène la tudd. Mm-hmm. yaayam mi ngi tudd Khadinian. Mm-hmm. donc ñoom amoo tefes la ñu la ñu dëkk depuis dimanche la réer. xale bi nag boo leen ko gisee mongol la donc bu fekkee gis ngeen ko ngeen contacter waa télé bi. on vous montrera sa photo d'ailleurs voilà après dinañ leen wan photo bi comme ça ngeen mun jàppale yaayam. retrouver ko. Boubacar Pende Yeri. waaw ba. <laughs> Ablaye Daaro Mbaar ak Maajoor. ah takk Sidi Binta sa maam Doro Bela yow ko ko ko ko ko jamono bàyyi na ci bàyyi na ci yow xel. jox ma ma may. waaw waaw ko bokkal TFM gënu la. bu ko meree ma yabale ko foofu. yokkal sa ah, <laughs> ah, ah. à vendredi. damay a tàng bu soobee yàlla. incha allah mais li ma jàkkaarloo ci jàkkaarloo mooy jàkkaarloo chaque semaine day gën a tàng. ah. sa jàkkaarloo. c'est grave ah. no comment. kañ ngeen may invité jàkkaarloo. li ma la wax dafa bëri de damay ragal nga il faut ngeen invité ma ma ci war a wax a bëri. waaw waaw semaine bi yëpp da nga aalu. wàcceel sa grippe comme <laughs> mais euh, euh, naa leen kii vacances lundi de. wéé lundi yow leen du am mais quand suba dina am 6h45 mbokk yi mu ngoog euh, ñu ngi gërëm ñëpp ah monsieur Sarr merci beaucoup rendez-vous donc demain théâtre Sorano Sekouba merci. à demain inchallah merci beaucoup Djibi Dramé donc suba yaa théâtre Sorano en attendant grande nuit du Bazin inchallah allah ci mois de juillet bi lay doon yooyu yëpp nag di ngeen ci mën a àndandoo ak télévision Futur Média groupe Koba euh, Koba yi ñoom ñoo réalisé émission bi ñu ngi leen di gërën bu baax ki ko jiite euh, di Pierre Da Silva ñoom Mbéru Sarr ak euh, les deux fous la maison Abba ak euh, Boy Ibou Cissé euh, Mbaye Diouf kontaan nañu Babacar yow kenn gënu la yow yow yow yow wàlliwu nga voilà yal na yal na sa jàmm yàgg Pa Moussa da ngaa yéex a ñëw ma foog ni da ngay teel a ñëw ci yeewu leen bi pour périer mais bon Sali ñu ngi lay gërëm bu baax ko yore desk ndekki mami et tout le monde ah ku lim Dioum on vous souhaite une bonne journée on se quitte ak Mariam Kouyaté ak bi mu àndal Mariam il faut nga présenter ñi nga àndal kenn par kenn bu ko defee nga enchaîner directement woyal ñu laataa ñuy dem ci permanence beeg KEPS. waaw ma présenté Ibra. Uh-huh. Ndiir ak uh-huh. la basse. Uh-huh. waaw euh, Boubacar Sissoko. la Kora. Pocho Ablaye Ndiaye. Pocho guitare la guitare basse guitare. voilà Ibrahima Ndoye. voilà <laughs> moom mu ngi ci ginnaaw voilà. Aïcha. c'est ça le groupe. jeex na ñu bàyyi la nga nga nga tëj léegi yeewu leen bi tey. leen jaajëfal ñëpp na foo mbaa musu ko Exige un mani, na fome, como

ak euh, sama mag yi buuba euh, di gërëm encore euh, ñoom ñëpp ñu toog ci taabal bi mm-hmm. merci encore Pape Cheikh kontaan naa trop. ci invitation bi. merci di gërëm sama waa kër waa parcel mhm. su ma limee Dioum di leen mhm. jaajëfal. di leen remercier ci saa saa su nekk ñu may naan jàppal. très bien di ma encouragé. Euh, ak sama waa kër sama kër nijaay Toumani Koyaate mhm. mu ngi ba Las Vegas. très bien. ma seetaan ak jabaram. nekk foofu. ak njabootam ci waa kër gi. parcelle unité 7. ak sama kër. nijaay Abdou Sissoko. voilà toute la famille. merci Mariama euh, kontaan nañu. bonne journée yeewu leen dina dellu si waat suba 6h45.